xam yenn posture yi boo ko amee kenn du la mën a layil ma baamtul may waat maanaam dama taxawaay boo xam ne boo ko defee kenn du la mën a layil parce que Ousmane Sonko moom moom lay principal concerné bi lépp leen lu ma ci wax xel mu rëy la pexe bëri pexe mais nag dinaa la wax loo xam ne man moom laa gëm ci politique de façon générale ak lu mu mën a doon man je prends mes responsabilités damay assumer d'abord man li ma gëm mooy démocratie ak république ay acte principiel la maanaam lu ñuy lu tëral la bu ko layil tey ci wolof da naan lépp loo fi dugal da ngay ànd ak askan bi donc gouvernement du peuple njëriñ yu moo jeex jeexital bi mais aussi lépp looy def da da da leen di bàyyi xel donc ki ki atte sax at askan wi lay attal donc la justice c'est pour le peuple mm-hmm. maintenant li xew ci Ousmane Sonko du fi guléet il faut si ñu ñu fàttaliku ay mbir jamono boo ci nee dafa am loo xam ne daf def fi nekk mooy muy taarix te taarix dafa am lu muy jëriñ pour ñi teew tey mooy am ñu am jànge dara ba tey taxawaay bi ñu mën ko joyante ba du am safaan dafa am ay cause lu waral lii ci Ousmane Sonko da daan dem justice te koo waxal yàlla daan dem justice da daan ji moom jàpp na ne ay ay ay ay droit am dañ ko salfaañ jàpp ne ne bu ñu demee bu demee procès du am procès bu équitable jàpp ne ne moom dañ ko dañ ko daanaka dañ tuuma bi dañ dañ ko tooñ te ñuy seetlu aussi am taxaw seetlu xool ci langue politique yëpp dañuy jàpp ne dañ ko singili mais moom bu décidé ne moom du wuyu ji justice otu pare na ci day def day def day def désobéissance désobéissance maanaam day lànk carré ne dootul wuyu fi mbax ne doon benn danga ko koy nangul moom mais nag bu demee ba jamono soppeeku moom mu xoolaat xoolaat taxawaayam peut-être ñu ñu ñu ñu defal ko parce que boo bëggee nit ki muy su la ci àtte boo xam ne moom da ci am intérêt parce que bu ma koy il faut ñu koy fàttali justice ñun ñëpp am intérêt ñu joyanti ko mais bamtu lii pour ñi def politique nekk ci réew mi Sénégal amul justice ñi koy wax yépp dañ am lu ñu fàtte dañoo jàpp justice bi justice bi dem ci politique bi mais kuy waxal yàlla te yàlla tax. chaque mardi am na justice bu fi am dañuy def ay délibéré ay chef d'entreprise nekk fa ku tooñ ñu daan ko ki am dëgg ñu jox ko dëgg liñ gis nag dañoo gis justice boo xam ne dafa lëkkaloog politique il faut que ñu baam parce que Sénégal ay borom xele fi nekk xale yi dañuy seetaan dañuy bëgg xam parce que boo booy yàq dara te ëllëg nga war a ci dem toog boo deful ndànk du la jëriñ mm. mais boo bàyyee xel na li ngay li ngay yóotu ëllëg dina la da war a jëriñ da ngay waxataan ak nit ñi ba ñu xam lu mu doon justice ci réew mi ñu ngi koy rendre tous les mardis tribunal commercial fii la nekk kër góor gi ci foofu ay chef d'entreprise ay milliards lay engagé ñu ngi koy rendre maintenant li lëntal xel yi li naxal xel yi li xam ne xel yi tax xel yi jaxasoo ci réew mi mooy justice bu lëkkaloog politique te loolu il faut que ñu taxaw ci seetlu Ousmane Sonko bu waxee tey jii ne du wuyu dafa jàpp ne justice bi bi mu amal affaire dafa lëkkaloog politique te ñu gis benn mbir tamit. Mhm. ci taarix. bi fi kii fi ne yor réew mi président Macky Sall bu bañ ko sàllul dafa am lu mu doxalee ci Khalifa Sall am lu mu ci euh, Karim Wade donc ku domin ku domin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw ndax Ousmane Sonko am na sañ-sañ. Mhm. ne moom li jot a gis dalul xelam lu wuy. loolu laa ko mën a loolu ci loolu laa mën a wax mais léeg